exactement nga am tampon da ah, waxtu bi moo ñu xoj ji wax nga ko euh, tey nag fi ñuy génnee euh, Yacoumba euh, moom mooy coow li nga xam ni ñëpp a koy waxtaanee ci grand place bi muy coowu Karina Karina ak ki nga xam ne moom mooy Mati Trois Pommes Mati mhm. Trois Pommes ñëpp xam nañ ko di animatrice boo xam ni vraiment tamit marqué na li nga xam ne moom mooy temps waaye tamit doon na tamit ku ñu ràññee woon ca 2S euh, TFM ak fi euh, nga xam ne moom mooy euh, Sen TV jamono ji moo ngi Africa 7. Momadou 3 Pommes nag ak Karina dañoo tase woon nañ ci benn inauguration boo xam ni benn fu ñu doon benn hôtel ah. wala benn boîte bu ñu doon inauguré. fa la ñu tasee ndeke Karina moom am na loo xam ni dencal na ko ki nga xam ni moom mooy ñoom ñaar ñoo nekk noonu ci écran bi. dencal na ko ki nga xam ne mooy Mati 3 Pommes ci jamono ji nga xam ne moom doon def 100 pour cent people 100 euh, pour cent people boobu nag ci la euh, Karina wax ni kat euh, am na ay jamono yoo xam ni moom Mati 3 Pommes da daan wane li nga xam ne moom mooy lenn ci ay photoom yoo xam ne du ko du ko neex. Euh, naa nag euh, moom xam xammee nañ ko ci bois de nuit yi xammee nañ ko tamit euh, ci bu baax a baax. ci site internet yi. mais nag bi histoire bi amee ñun ñi nga xam ne dañuy gëstu ci côté boobu dugg nañu tamit ci site internet yi dugg nañu ci Facebook am ci li nga xam ne moom la accusé ki nga xam ni meree ki nga xam ne mooy Maty Trois Pommes ci photo yi nga xam ni moom ci boppam la meree woon Maty Trois pom Euh, mais photo yooyu ñun dañ ko fekk moom ci moom Karina ci Facebook am moom mu publier ko. Mhm. kon c'est-à-dire que waru woon a bañ ku ko publier. parce que euh, euh, so sol maillot de bain sol nangam ba tax ñu nga mere ci loolu c'est-à-dire que yow yaa ko njëkk def ci sa Facebook parce que ki ko def ci Facebook am je pense que ba publier ko nëbbatul li muy def. Mhm. kon lu tax mu garder benn colère vers ki nga xam ne moom mooy Mati Trois Pommes moom ki nga xam ne moom mooy Karina. ba nga xam ni euh, jot na ko fa euh, xam nga agression ñaar la mooy. Euh, verbal ak physique ak mhm. maanaam moom mooy bi nga xam ni verbal la lu ñuy wax la. muy ay kàddu yu ñaaw a ñaaw yoo xam ni ak i saagaak yu dem ak i xas yu demee ne ko noonu ak boo xam ne dañu lay wulli wulli moom mooy di la duma. am na agression daal ci ñaar yooyu boo xam ne def na ko ki nga xam ne moom mooy Mathieu Trois Pommes mais lii la ko Mathieu Trois Pommes tontoo moom mooy duma égalam maanaam du ma égalam mooy du ma moroomam. Euh, du ma nawleem waaw moom day fanaan ci boîte de nuit yi ak la ko neex lay def te man am naa loo xam ne dama koy jomm kon du ma du ma moroomam moom la ko mati trois pom euh, tontu euh, waaye dañu ni sañ-sañ boobu mu am ci vers mati trois pom ba agressé ko ci benn boîte de nuit bu ñu doon immigré dafa am fu mu dëgër laayu ak tëkku ak boole ko tëkku ko ah mati nag nee na dina dina def plainte am yóbbu ko ci li nga xam ne moom mooy moom mooy yoon mujjee jot nee na du ko ko defati parce que buzz da koy may buzz te buzz boobu da ko ciy bañ. ok moo tax euh, ci information yi ñu mujjee jot. que dootul defati li nga euh, xam ne mooy plainte boobu. Euh, ñu bari dañuy ni sañ-sañ boobu mu am ah, ba def ko mati trois pommes dañoo jàpp ni dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo dooleel ki nga xam ne moom mooy Karina ba nga xam ne moo ko muy fit ba mu jàpp ki nga xam ne mooy mati trois pommes def agression.